kon ñu mujjee ko rek ci li nga xam ne Assane ci doon insisté boobu ba léegi muy ministre de l'intérieur ginnaaw génn Ousmane Sonko gi am nañu bari ñu ni baax na ci wax ji ndax génnam gi tamit tax na daal wala boog sax coin dafa dafa dëppoo ak li nga xam ni mooy li ministre de l'intérieur def muy yabal waa BIP ñu dem xoole ji cortège boobu nga xam ne nee nañu Assane cortège Bart la duñu mën a teg vidéo bi waaye daal nangu nañ fa ay ngànnaay yu bari te nee nañ am na bis boo xam ne ay nervi kese la defoon bis booba itamit daal nervi yi ñu fa fekk yóbbu nañ leen yóbbaale ngànnaay yi nga xam ne ñoom lañ fekk ca bis ba kon mu mel ni daal ministre de l'intérieur artu na waaye itamit artu woon nag ci ginnaaw waxoon na waaye daf mel ni démb bi dem nañu am ñu ñu nangu ay ngànnaay tee leen. ngànnaay yi moom bañ ko waree nangu dafa yàgg. moom laa lay wax sànq nii. Mm-hmm. ba mu joxee arrêté bi rek. Alaaji Sanjoogu mi waxoon na ko nee na leen woon yéen takk der yi bu ñuy dem Bakel na ngeen taxaw ngeen fëyate oto Hmm? boobu mooy ca procès bu gaan waaw ngeen fëyeete oto yi nangu ngànnaay ndax ngànnaay du ñàkk booba lañu waroon a nangu ngànnaay mais nag buñ xaaree ba nga xamante ni wàcc nañ loxo yi jam biir yi jam pooj yi ñu doog ne nañ nangu ngànnaay yi day fekk bay way mbuus kon ba ñu waree nangu ngànnaay yi yàgg na mhm. mais ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy def loolu yi di ànd ak politiciens yi mhm. am na si loo xam ne responsable politique politicien bi daf laa jël jox la ngànnaay ni la sama sécurité yor ko waaw hmm? waaye nag si biir sécurité bi waxu la jamal waxu la dóoral sécurité pour ki ñëw war a dal si ki nga xamante ni moom nga yor sécurité am kooku nga war a aar boo dee dem nag boo gisee ñu yor ay xeer nan koo sànni ki nga àndal mën ngaa daw dal si kaw ñooñu te boo àggeet da nga yor aw liif wala nga yor yet mën leen koo dóor ñu dem toog jóge foofu waaye nag yor ay jaas di dóor ay nit wala yor ay paaka di jamati ay nit loolu moom yow mi koy def luñ la man di fay jëru ko te ki nga koy defal sax mën naa doon sa rakk wala mu doon sa mag wala mu doon sa nangam ki ngay gaañ waaw mais ki nga xamante ni mi ngi biir palaasam taxaw ci bunt bi même bu la saagaa ndey yow waroo koo fekk biir palaasam di ko jamate loolu nag bari na waaye fi mu nekk nii li ñu xaw a dimbali mooy caméra surveillance yi caméra surveillance yi moo ñu xaw a bu doon bu fekkoon ne kamara yi am na feneen da nga gis yeneen vidéo yu gën a garaaw yi am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi si lali hôpital mais nit ñi yëguñu ko kii bi te ñii àndal it duñ filma loolu ndax man gis naa fi ab benn vidéo boo xam ne ñaar ñu ko royse lañ ñi buñ nee ñi ngi ñi ngi nii di xeex mais kii bi day tourné ñi nga àndal xam naa dañ siy waxtaan ak ñoom duñ jël xeex boobu mais caméra surveillance yi moo leen di dimbali mais yow mi nga xam ne yaa yor paaka war ngaa am xel dem di ko jam nit war ngaa ànd ak sa xel bu baax a baax te xam ne kii nga koy jam boo ko jamee mën nga koo rey mm-hmm. mais kon nag ministre de l'intérieur booba bi mu aayee ngànnaay xam na ni sécurité karawaan bu yorul ngànnaay amul karawaan yëpp yor ngànnaay yëpp yëpp ay jaase ki yor nañ ngànnaay rek karawaan yëpp yor nañ ngànnaay bépp rek bi si gën a tuuti ba bi si ëpp mm-hmm. ñëpp yor ngànnaay mais ngànnaay yooyu ñu yor it pour sécurité ki ñu àndal la mm-hmm. mais yoruñu ko pour war koo jëmale si kaw askan wi kon nag bi nga xamante ni ñi ñu attaqué ñoom bañ après ministre de l'intérieur car caravane bi euh, wàcc leen nangu ngànnaay hmm. fi ñu doon jamee boo yi nga doon wax hmm. euh, attaqué wuñ leader bi nga wax ne moom lañ doon aar xam nga danga nga ñoom dañuy aar ki ñu hmm. nekkal waaw damaa wax li ñu war a def mais dama ne ñii moom bi ñu def lii seen seeni leader nekkuñu fa moo tax ma wax la loolu waaw moo tax man la warul leen dugg place bu jàmbur même bu la saaga woon di ko jamate xam nga man boo gisee bi nga weesoo nii nee naa la ñaari cortège tësi wuñ xeex waaw xeex yëpp da ngay romb arrêt jakartaa ñu wax la lu naqari nga duma leen. Mm-hmm. nga romb ay booy taxaw ñu wax la lu naqari nga duma leen. nga romb nga romb loolu la mais ñaari cortège yu taxaw jàmmaarloo su amoon rek sax ñu xam ne am nañ fit. d'accord mais dañuy moytonte. d'accord buñ déggee caravane bi aw ne nii dañuy aw ne catle la ñuy jol wala leneen. d'accord mais ministre de l'intérieur bi daal na jël ab arrêté. jël na ko kay bu yàgg. ni ni campagne caravane yi na dakk na dakk waaw. li des ci élection yi. ñu bàyyi caravane. waaw. képp koo xamante ni yaa ngi def sa programme nga dem jëli ab istar. mais am na ñuy Assane am na ñuy caravane. Ah. Euh, sooke wuñ ay xuloo. sooke wuñ xeex. Mm-hmm. jame wuñu. Mm-hmm. kii ñu léegi su boobaa kay kon. caravane ah. bii di def loolu. Mm-hmm. day yàqal ñu le te benn. caravane lañ gis ay nitam di attaqué. waaw lool la. benn mbir bu amee rek. bu problème amee rek day day wàll wàll ñëpp. waaw mais benn koy def. waaw baax na. nañ ko arrêté wax leen ni leen may nañ leen conférence de presse yi ngeen di ko def. may nañ leen ngeen dem si télé yi may nañ leen ngeen dem si stade yi may nañ leen ngeen dem si saali yi. d'accord ngeen def seen programme mais karawaan bi daal di wër si mbedd yi di xeex ko xuloo ko tardeel oto yi daal te waxu leen fa dara lu am njariñ di romb di tàccoo ko teg musique rek daanaka arrêté ko moo gën. kon na ko arrêté te lu may loolaat bu ñu yem si cortège bii nga xamee kar nañ ko nañ nañu kar cortège yëpp vérifié leen nangu seen i ngànnaay cortège yëpp bu ñu bàyyi benn ba ya nekk Saalum sax. nañ dem ba Saalum. xool seen i cortège Aliou ak ñëpp si yam nañ xool cortège yëpp nangu seen i ngànnaay. d'accord tey jëruñu si arrêté kenn di ko tëj nag. d'accord nañ corrigé ñi ñuy corrigé mais jërut arrêté kenn di ko tëj. ndax campagne même ñi kiñ gor buñ tëj ki ko gor. dañ koy jël dañ koy jël à charge faj ko. ki nag. Hmm? ki mais ki ko gor moom ah yoon dana def liggéeyam. daa jërul tëj. ah déet kooku moom yoon dana def liggéeyam. d'accord si yoon xam bu fekkee problème mu campagne ndax dafa am ay décret yu siy wàcc. wala problème campagne dafa am lu si nangam dafa am lu si nangam yoon moo mën a xam lu si xew. d'accord Ndiogu euh, ministre de l'intérieur bi ginnaaw bi ndigalam xam naa moo tax waa bi dem kar cortège bi ñu karit dañoo def mel ni daal xamoon nañ li xew wala amoon nañ information yi jékki-jékki nañ daal baare dugg ci oto fekk fa ay nit ak i ngànnaay ñu jël leen yóbbu. Mm-hmm. yóbbu nañ leen Saint-Louis ci Saint-Louis ci suba. ok waaw. xam nga am na loo xamante ne bi. tey ku ne réew mi soppeekuwut da ngay wax lu la neex rek parce que lii la kenn mës sa gis parti au pouvoir ñu téye ko song di ko songee nii. waaw lii moom ku ne réew mi soppeekuwut da ngay wax lu la neex. Mm-hmm. buñ ñu demee ba ki nga xamante ni mooy candidat euh, Pastef. di premier ministre. Mm-hmm. di ñaxtu comme sénégalais yépp waaw lii ku ne réew mi soppeekuwut. dangay wax lu la neex. Mm-hmm. réew mu soppeeku nag son yi bu. ñi nga xam ni yëgu ñuy peut-être réew mi soppeeku nag moo tax ñu ñuy indilaat réew mu soppeeku ni mu mel. Mm-hmm. parce que moo tax discours candidat bi jaaxal leen parce que dañ ne lu mel ni mustaam waaw waaw mustaam xam nga depuis quelque temps nit ñi ñu bari ñu ngi expliquer taxawaay bi nga xamante ni bii tey. état bi mi ngi koy taxaw. Hmm. ci yenn yi jàpp ni ay gentleman la nekkal ni mu nekkal ay nit lañ yoo xamante ni bi unité lañ. loolu la foogoon. waaw parce que man dama jàpp ni dafa am fu ñu jógee ñu bañati faa dellu état di ci góor nag fu góor góorgóorlu yam mais dafa am ñoo xamante ni bii nag boo defu ndax ñoom ñoo nar a yóbbu état ci mu daal di jël yeneen dogal yu wuuteeg. ñi nga xamante ni bi parce que dañuy xam nga parents ay nit da ngay defee ni nit la mhm. ñu def li nga xam ni moom la ñu war a def mhm. parce que li ñu war a defoon lépp lenn la woon rek kenn waru ci woon a ko parce que xam nga lu tax dafa am fu ñu jaar campagne bi nit ñi dañu waroon a dem ku ci ne wax li nga xam ni moom ngay wax wax ko sénégalais yi bis ba jot nit ñi dem voté ji ka gañ a gañ nit ñi daal di feetu ñu continuer mhm. mais dafa am ñoo xamante ne dañu ne loolu du xam nga lu tax du parce que ñoom ci seen jëm bopp xam nañ ni politique bi soppeeku na. yaa ngi dégg. si ñu bëgg indi leneen nag. comprendre nga pour ne pour li nga xam ne moom lañ doon wax naan réew mi jamono ji njëkk foofu lañu bëgg a dugal réew mi. Mhm. loolu nag defe naa ni euh, état du seetaam loolu mhm. di am. Mhm. moo tax discours bi nga xamante ne bi moom la Ousmane Sonko ko def démb. Euh, am na loo xam ne il n'est jamais trop tard de bien faire. ok lu baax saa yoo koy defee rek baax na. Mhm. moo gën bañ koo def. naan mhm. noo yeex na déedéet. jamono jiñ toll nii. Mhm. du question dañ naan bëy wéy na mbuus déedéet li des am na lu des. te dafa am fuñ jëm. waaw donc il faut que état wane ni mi ngi fi. dina sécuriser nit ñi. taxawu leen. ba ñu def li ñu war a def ñi nga xamante ni bii ñooy ñiy def loolu ñu teg leen fitna goo xamante ni fitna gu sëkk la du question hasard àddina bi du jarul parce que tey ji ki nga xam ne est-ce ko woon a def bala ko président bi waaw même bu ne teel ñu ko def waaw mais xam nga loolu mooy ko woon non non toll fi mu toll ci fii lañ ko wax ni nañ def ko def même bu mhm. fekkee Sonko même ko waxee ab sénégalais la boo xamante ni bi ay mbir yi dafa dal ci kawam waaw mais El Hadj moom day fàttali ni Ousmane Sonko mooy premier ministre. waaw te mais ab sénégalais wala mais c'est que xam nga moom dafa am ñoo xamante ne bi li ñuy bañal Sonko mooy lu Sonko wax la ñuy bañ lu lépp lu Sonko xasa rek bañ nañ ko. Mm-hmm. dafa am ñoo xam loolu la ñuy bañal Sonko naan lu tax wax li mu ko li mu wax dafa am raison. parce que ci njabootam la ñuy gaañ. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom lañ gaañ fii ak njabootam lañ. ña nga xam ni ñoom la ñu gaañ boobu ba nëgëri ay njabootam la kon nag même bu fekkonte ni bi sax dafa jël ab ordre joxe ko sax dafa war a joxe ordre parce que ñëpp gis nañ li xew. Mhm. Sénégalais yëpp ko gis. li xew. Mhm. mu doon ñaaw téef goo xamante ni ki kenn mënu laa wax nu mu am bu dee nag nit ñi dañ fiy bàyyi jëf ji di wax ay wax ji. loolu vraiment mbiri caaxaan la. d'accord li ñaaw mooy jëf ji. parce que bu fekkonte ni bi tey jëf ji amut ko du wax. Ah, dëgg la te muñ naa. Mhm. muñ na ko benn yoon fii waxut. bi Abbas di wax nii xam nga Sonko waxu ci. muñ na ko Jurbel. Euh, muñ nañ ko. Koungheul xaw ma Koungheul Kaolack ak yëpp muñ nañ ko. Hmm. mais nag dafa am loo xam ne lu ëpp tuuru. Hmm. lii dafa ëpp. d'accord nañ wax dëgg ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a wax. Hmm. mais pas que ñu bàyyi ki nga xam ne moo def yëf yi. nekk fi naan waa ji li mu wax waru koo wax ak lu ñu loolu vraiment ay waxu caaxaan la. d'accord nit ñi nañ bàyyi waxu. caaxaan yi quoi. macha allah tey jël yëf yi di wax li nga xam ne mooy l' essentiel. macha allah l' essentiel bi mooy jëf ji nga xam ne moom lañ jëf. macha allah jërëjëf kii wax tuura ko fi benn deret. waaw waaw dëgg ñii di jëf di tuur deret ñuy wax ci loolu nga naan non non mais kii wax na bàyyi wax. waaw mm-hmm. <laughs> quand même. dëgg la de waaye sérieux quand même. allah.